encore nekk opposant ça ne veut pas dire que loola neex wax loola neex def moi je crois que da ci ñiy jiitee réew mi mais opposé woo ci ñi ko yor c'est-à-dire yorin bi du pouvoir politique bi mais ñi nga xam ne ay police ay gendarmerie ay douane ah ak ku fi nekk yo nekk corps boo xam ne ni dafa bokk da bokk ci ñiy aar Sénégal ñooñ loo yor kàddu musuñu déglu benn homme politique bi fi daan nekk di ut réew mi am ko walla amu ak ñaata sénégalais lañ amoon fi ñu yor ay parti politique ñaata sénégalais lañ fi am ci ñi nga xam ne ni ñu ngi doon ut réew mi amul kenn koy ut réew mi ni ko Ousmane Sonko di ute loolu mooy lan nit fitina boobu jël kàddu di wax police di wax gendarmerie ah di di di wax ku ne ah, di wax sëriñ si di wax journaliste ba ñëw ci nag léegi li nga xam ne mooy suñu armée loolu nag sénégalais dañ ci war a wax en tout li nga xam ne am na solo euh, Farba moom du juge du magistrat du la homme politique la ci wàllu candidature am loolu mbir la moo xam ne ne on suivra ce que la justice loolu conseil constitutionnel li mu ci décidera mais avant ñu fay egg si quand même d'être candidat ci moment yi nga xam ne waroo nekk candidat wala war nga nekk candidat am nga problème boo xam ne ne sénégalaise nga amal problème Adji Sarr Adja Adji Sarr laa koy waxee man léegi Adja Adji Sarr waaw Adja Adji Sarr nga am problème ak moom ndax yéene naa ko mu dem màkk bu ci yàlla àndee heure bu paree li muy dox noonu dinaa ko utal billet màkk xëy na mu dem mu dem aji quoi Adja Aji Sarr nga am problème ak Adja Aji Sarr léegi boo amee problème ak Aji Sarr problème boobu jeexul parewul ah ci mbir boobu nag ñu pare ci élection nga jël kàddu au lieu ngay set mu da ngeen mus a dégg ci limite safee gémmiñ di wax yëpp di saaga mus naa jël kàddu tontu ci mbirum Adji Sarr ci opinion publique lu yow neex nga lammiñ bari nga bëgg nga lu tax Adji Sarr bi lay tuumaaleel mënoo ci indi tuuti éclaircissement yéen journalistes yi tamit comme dafa chaque semaine chaque vingt jours dafay woote ay point de presse lu tax du ngeen ko ci interpellé yéen saa yi xanaa amu leen courage boobu loolu daf may jaaxal dafa war a leer dafa war a leer nee leen ko Adja Adji Sarr yéen journalistes yi lay waxal Adja Adji Sarr li gars yi ni lay waxee doyooyu na ci tontu tuuti même bu dee war ñu xam ne au moins amal na ko tontu comme dafa rëy làmmiñ ah dafa rëy làmmiñ di wax rek chaque seconde chaque weer chaque trois semaine di organiser ay point de presse nañ ci mus wax mbirum ma ak Adja Adji saar avant sax muy dem ci ci wàllu politique mu tontu tuuti comme accusation la accusation boobu leeragul xamaguñu aji la wala moom moo am dëgg yéen journalistes yi dee leen ko ci tuuti interpellé bii baax bu leen wooyee point de presse ñu ngi xaar. ngeen même bu ko waxul ngeen interpellé ko ndax mu indi ci tuuti leeral loolu dafa am solo trop waaw en man li may wax daal sénégalais yi xale yi laay waxal man li ma ci gën a marqué mooy wala li nga xam ne gën nañ ma ci def problème mooy nga jël sa kàddu di def sa point de presse di déclarer sa candidature en tant que homme politique waxoo waa Pastef parti bi nga xam ne moom nga jiitee mais di wax sénégalais yi préparer leen ñu préparer wu la est-ce que warul dem wuy justice war wuy war naa wuy dem justice man question boobu dama koy poser sénégalais yi war na wuy wala warul wuy comme war na wuy nag loolu loo ci préparé ay nit loo ci préparé ay nit demal préparé nga dem wuyu man mii man sama jëmmu bopp en 2010 bi police ñëwee sama kër derkale di ma wër ma ñëwaat fekk leen ñu dem fekk ñu ma foofu xaaruñu ma ba ñu ñëw jël ci ma walla bu ñu indil ma convocation man maa taal sama oto directement ak sama chauffeur dem directement dem wuy ji police commissariat central jamono yooyu jotuma convocation boo xamee ne ñu ngi lay wër justice def la soxla walla police gendarmerie yi nga xam ne ne ñoom leeral askan bi lañ fi nekk ñoom ban intérêt la ñu am ci jàpp koo xam ne walla téye koo xam ne ne dafa toog ci dëkk te ñoom ñoo war a àtte dëkk bi amul solo dama dem wuy ji ma ñëw foofu sept heures du matin falaa toog ba dix-neuf heures et toog ñuy wax ak man traumatisé wu ma déstabilisé wu ma question yi ma doon posé dama ciy tontu mais ndax duma sénégalais ah ndax waruma wuyu dem wuyu pourquoi ça Ousmane Sanko dafi gën nit ñi walla daf ñu ëpp ndey ëpp ñu bàyyi mooy kan ku mu fi gën waaw ah, kon nag loolu yàggul ne gis ngeen ni ko ni leen ko waxee ki nga xam ne dafa bokk ci responsable yi gën mag ci biir euh, euh, euh, coalition Benno Bokk Yaakaar wala parti bi biñ ko tuumaalee lu mel noonu dem na wuyu de mun ci loxo yoon heure bu àtte jotee day leer moom it mooy kan ba nga xam ne du dem wuyu de xanaa moom koo xam ne ëllëg bëgg ngaa doxal réew te yoon xalaat nga di ko doxal man ci sama xalaatu bopp buñ la woowoon sax yaa war a dem war am cawarte bu rëy dem wuy ji rien que pour leeral li xew loolu dafa am solo en tout cas daal euh, li gën a garaaw attaqué Macky Sall moom ci la dëkk ñun suñu genre yi ku laal Macky Sall ñu dal sa kaw on ne cherche même pas à comprendre je sais que ma position c'est la position de Ablaye Seydou Sow te tamit mu ngi nii di jógee Kaffrine man ma jógee Matam ñu tas fii di organiser conférence de presse du ay dara du ay calcul politique du leneen bien que ñun ku wax ma ci Macky Sall ñun ñaar am na ñu conviction yi nga xam ne kenn ku nekk si ñun Macky Sall mooy suñu leader ginnaaw yàlla ak bi képp képp ku commencé laal ci adduna rek dañuy jël suñu position wone suñu position kon nag dama leen di wax sénégalais ak sénégalaises yi xale yi laay waxal moytu leen boobu appel bi mu leen di appelé di wax aussi la coalition Benno Bokk Yaakaar waxuma seulement APR yéen tamit ci seen jéemu bopp jóg leen jot dafa jot duñ ko bàyyi rek muy wax ba ngoom di tontu wala ab Sow wala les cadres il faut ngeen jóg wax ak moom wax ak réew mi wax dafa jot kii duñ ko bàyyi rek muy lancer ay appel di yàq xelu xale yi te xale yi ñun ñëpp ñun ñoo leen jur ay suñuy doom lañ suñuy jarbaar lañu suñuy rakk lañu ñu bàyyi xel ci joolu pour ma mën a wax ak ñoom parce que am na loo xam ne boo buñ la ko waxee balaa nga koy comprendre mu nekk lu trop tard dañ ko war a xoolaat avant mu nekk lu trop xale yi yéen laay waxal toujours man ci loolu laay insisté bàyyi leen seen xel élection bu jotee am ngeen liberté dem sànni carte ku leen neex loolu leer na mais comme élection jotagul kaa la ñu dem rayante kaay la ñu dem xeex ndax man ma mucc loolu fu ngeen ko wisee bàyyi leen ci xel lool man loolu laa leen di wax. te tamit li mu wax ci waxu ab Ablaye Seydou soo tontu na ci tontu boo xam ne ne xëy sax moo ma ci ëpp xam-xam mais xam naa mbirum lenn rek. France ak beneen réew moo ci yam puissance mondial États-Unis la Barack Obama bi mu fi ñëwee teewule Macky Sall am courage wax na xalaatam ak li mu bëgg ak li nga xam ne bañ na ko loolu ci kanam askan bi yëpp télévision direct la ñu koy seetaan waxuma la France loolu dafa war a leer nit ñi xam ne ne ah, position de Macky mbir la mbirum justice nag tant que leeroo ci rien que pour que pour ngeen xam li tax muy wax ne candidat la est-ce que jamonoy candidat dafa jot nga koy déclarer moment politique jeex na léegi législative lañ jigéen présidentielle kenn waxagu ko kenn fixé gu ko da ngay xaar ba ba réew mi ba ñu fixé élection présidentielle nga doog wax sa candidature dafa xam ne ni du mucc ci dem wuy ji à la justice li muy wax noonu réy la mi ñëpp tàppet la moo gën a nekk bu xat ci aduna laa moo kan commencé di saalik di naan appeler à sénégalais yi xale yi ah, préparer leen lan la ñuy préparer on prépare ay convocation boo xam ne ni bi ngay dem di maase bi ngay dem di defar sa yaram bi ngay dem di xool sa bànneexu bopp sa bakkan topp la kenn fekke yu ko tey ñu lay ñuy bëgg nga leeral loolu kaay leen ngeen dem préparer lu leer ah foofu leer foofu leer ku fi saggan maase maase normal ñu ngi lay ñaan yàlla na sa ndigg wër ku fi maase maase boo xam ne dafa rax leneen nag kooku bu leeral ñëwee yaa koy leeral sa bopp nag loolu kenn du ko leeral ak li ñu doon ñëwee ci wàllu bari affaire bopp la loolu daa leer kuy maase wu massage bu normal góor ak jigéen ñëpp dañuy maase wu ñun waxuñu dara ci ñuy maase ndax loolu seen liggéey la dañ ciy tedd am defar ci seen dund kuy maase wu maase normal sa ndigg bi metti wala sa mbagg yàlla na wér mais ki nga xam ne da ngay maase wu te sa massage rax leneen nag plaisir boobu yaa ko doon ut da ngay leeral sénégalais li ma doon def nii maa ko def il faut avoir le courage de dire loolu mooy du leer il faut avoir doon maase wu bii mais rax na leneen mais maa ngi jëkkalu sénégalais yi loolu mooy lu ndax da nga war a respecté ki nga ko doon seqal ba maa bi nga doon wut nga am plaisir boobu da nga koo war faut pas oublier ce boo xam ne bu ñu la nee woon salaamaaleykum booy booy tontu maaleykum salaam sa lammiñ day tàkk suuf faut qu'on se dise nag ñu waxante dëgg kon nag mbooloo mi daal loolu dafa war a leer sénégalais sénégalais yéen laay waxal wax dëgg yàlla xale yi préparé wu leen sur quoi bàyyi leen ki xam ne moo doon defar message am mu dem wuy leeral askan bi de du moom ñu bàyyi yoon def liggéeyam te yoon dina ci wax lii li am boobaa bu kiyee moom il est libre d'être candidat comme il était en 2019 Sénégal kenn moomu ko pouvoir moomu ko Macky Sall réew mi dañ ko koo dénk bu ñuy wax te yàlla tax donc problème candidat yi ñëwee ku war a nekk candidat te yoon permettre ko ko mu war a nekk candidat du Macky Sall mooy désigner ki nekk candidat ak ñi dul nekk candidat loolu yoonu conseil constitutionnel la kon nag loolu dafa am solo en lii daal laa leen bëggoon wax maa ngi gërëm journaliste suñu yeneen camarade ñu ko dégg départ ñëw ngeen xam ne daal mbir mi a euh, Ousmane Adja aji saar ak Ousmane loolu daa war a leer ba ñëpp xam beneen bi ci nekk aussi bu demee ba nga xam ne ne ñi mu doon wax yëpp journaliste yi ah marabu yi gendarmerie police ba léegi day tudd armée loolu aussi ah on la suite mais yaakaar naa armée bi Sénégal yi armée nationale la Sénégal yépp ko bokk ñoo loolu ñu ngi ko ñaawlu te rafetlu wuñ ko ci wàllu courage Macky Sall nag yoo yàgg naa leen ko wax xam ngeen ko ku taxaw ci kanam Barack Obama jël position bu tonn bi mu jëloon moom kan moo ko yóbbaale ci wàllu ay influence wala leen dépassé na lool maa ngi gërëm ñëpp di gërëm le ministre Abdoulaye Seydou Sow di courage am ci engagement am ci détermination am te man Farba Ngom yàlla dogal na tey soo amee légitimité di wax parce que pas rek da nga nekk ministre engage engagement bopp moo la indi fi nga toog du leneen bokkoo ci ñi sos parti bi bokkoo ci mais Macky Sall daf la jël teg la ci wetam xool la nag xool ci lu bëri xam sa qualité loolu dafa solo ci wàllu doomu aadama jaar sa jaar-jaar avant de devenir ministre da nga am jaar-jaar te sa jaar-jaar yëpp amu ci fenn foo xam ne dañ koy testé wala xool ko di xoolaat 1 pour cent ñu koy gis ci ay calcul. damay waxaale man sama far man far ba Ngom sama làmmiñ nekkul sama biir poos les gens camarades de l'APR il faut que gars yi jóg waaw il faut gars yi jóg du mu tudd tey nag tey tey ñëwuma pour di tudd turu kenn xëy na des moments à venir dina ñoo xam ne dinaa leen cokkaas ñoo xam ne ils ont tous les privilèges am nañu de am. mbir yi bëri te mbir mi jarlu leen dara dinaa ci tudd un à un deux à deux trois à trois ba mu leer nañu te loolu sama xalaatu bopp laay wax et je suis libre mais tey damay wax ak lii jóg leen loolu mooy wax ji